salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di euh, nuyu di am contentement di leen retrouver comme euh, chaque soir juste avant le journal de 20 heures ci biir seen émission Fixa alors xam ngeen nag euh, Fixa nu muy demee dañuy dem ci suñu chef fekki ko fi mu nekk ci cuisine am ñu daal di xool tey plat du jour lan la ñuy proposer à tout de suite. voilà chers téléspectateurs alors euh, ñëw naa euh, fekk si euh, suñu ay chef tey nag suñu ay chef tey ñaari chef la ñu dalal muy chef Melmi ak chef Aliou donc chef mi nag moom moo jël deuxième ci li nga xamante ne mooy concours ci benn concours parce que bëgguma tudd su ma tuddee rek damay def publicité <laughs> voilà donc chef Melmi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau FIHA di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi salaamaaleykum. ça va na ngeen def ñu ngi leen di ku ci nekk sa ak sa sant. ñu ngi présenté wu ñu ngi maa ngi tudd chef Melmi maa ngi ànd ak sama collègue euh, chef Aliou. Mhm. tey indil nañ leen euh, salade César revisité tey dañuy doxantu xam naa ba côté Mexique yooyu noonu. te foofu ngay dem. dañuy soxla crevette. Mhm. croûte crouton. Mhm. soxla crouton. pour ñu xamul crouton. Mhm. pain de mie ngay jël dagg ko ay dés. Mhm. nga sauté ko sel poivre. Mhm. def si beurre nga am sa crouton. d'accord ok donc dañuy defar suñu crouton li si des pour ay finition la comme euh, tomate cerise bi ak euh, olive noire bi. et cetera buñ paree dañuy defar suñu sauce César. d'accord waaw. ok yooyu yëpp dinañ wane processus bi nan lañ koy defaree. ay ca léegi fan la ñuy commencer. pour commencer dañuy commencer sauter suñuy crevettes. bismillah d'accord. ñu revenir ko ak tuuti sel. waaw. Mhm. def poivre. ok. ba mu daw. Mhm. parce que bu ñu teelee def aay bi. day day cramé dañuy dañuy bàyyi ba finition mu kii. ñu mhm. soog a def aay bi. alors euh, damay bàyyi nag euh, euh, chef Mimi. mu daal di euh, continuer ci li nga xamante ne mooy euh, euh, crevette am daal di ci ay assaisonnement am en attendant may ñëw ci suñu ay sponsor alors tey nag damay ñëw ci ki nga xamante ne mooy Ego comme j'ai l'habitude de faire moom nag nee naa leen quand vous avez un projet de cuisine n'hésitez surtout pas à contacter Ego Ego nag mi ngi fii ci VDN bi cité Tabago la nekk vraiment c'est accessible ñëw leen ngeen seet ci li nga xamante ne mooy ay cuisine allemande la vraiment garantie lépp lu ngeen bëgg rek mu ngi nii bu ngeen ñëwee vraiment euh, choix bi dangay ngay da ngay am embarras sax tellement que euh, am nga euh, un large choix donc mi ngi noonu Ego mu ngi fii nee naa leen numéro de téléphone bi mi ngi nekk 77 778 05 07 donc kooku mooy Ego ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ñëw ci Yassir alors Yassir nag nee naa leen euh, dafa nekk benn euh, service boo xamante ne euh, lépp lu jëm ci wàllum transport livraison lépp lay proposer da ngeen di dem App Store wala Play Store ngeen mën ko télécharger donc bu ngeen ko télécharger incha allah Euh, di ngeen mën a am euh, lépp lu nga xamante ne rek euh, mooy ay livraison de repas express vraiment ak li nga xam ne du ci ëpp solo mooy maanaam sama genre gi nga xam ne dañoo tayal dañuy toog seen kër bëgg a commander supermarché wala dara vite ñu livrer la ko donc loolu nag mën nga ko am en ligne. donc supermarché en ligne la leen Yassir euh, euh, defral donc Yassir nag daf leen indil lu am solo muy euh, li nga xamante ne mooy des paniers ramadan donc panier ramadan yooyu noonu di nga ko mën a am en ligne boo duggee ci supermarché bi am na pañe bu 15000 am na panier bu 25000 am na panier bu 35000 donc euh, loolu yëpp ci biir application bi ngay dem nga téléchargé ko boo ko téléchargé incha allah di nga mën a def euh, li nga xamante ne mooy sa supermarché en ligne alors euh, li ci gën a neex mooy durant tout le mois de Ramadan dañ lay livrer gratuitement la livraison elle est gratuite donc loolu neex na boo jëndee rek dañ lay indil rek yow doo fay dara ayca chef mel mi uh-huh. waa dafa mel ni saaf nga say crevette ba pare de. waaw suñu crevette ba pare. waaw léegi dañuy ñëw defar suñu sauce César. ayca pour defar suñu sauce César dañuy soxla jaune d'œuf. waaw dañuy soxla moutarde. Uh-huh. dinañ soxla huile d'olive. d'accord dinañ soxla crème fraîche. Uh-huh. dinañ soxla parmesan. Uh-huh. dinañ soxla aussi œuf dur. ak ay assaisonnement. ay ca af ak benn gousse d'ail. lii lan la nii. huile d'olive la waaw. mais est-ce que forcément huile d'olive nga ci mën a mën nga am beneen. huile waaw mën nga si def huile tournesol mën na mën na ko remplacer. juste que huile d'olive day gën a ok améliorer goût bi rek mhm. dañuy def suñu crème fraîche salée. ok crème fraîche. salée. parce que daa am crème fraîche salée. am crème fraîche. Euh, sucrée sucrée ah, ah. donc salé bi nga ci taamu. waaw salé lañ parce que vu que ñu ngi defar salade. Mhm. salé moo ci gën. Mhm. donc ñu rappelé li ngay def nii yaa ngi ci def euh, jaune d'œuf. ak euh, moutarde. Mhm. ak euh, crème fraîche salée. Mhm. d'accord ak tuuti huile d'olive. huile d'olive mhm. sel poivre. sel poivre d'accord. waaw ah, léegi dañuy def suñu fromage euh, parmesan. ginnaaw bi nga defee laaj bi ci biir ba bi ñu écrasé benn gousse bi. ok d'accord fromage parmesan. donc pare nañ suñu. sauce César. dañuy jàll ci suñuy croûte. d'accord donc am nañ suñuy crouton. Mhm. léegi dañuy jàll ci sauté bi. Mhm. ñuy sauté crouton yi mais pour ñu sauté ko da ngay bàyyi mu daw tuuti. Mhm. beurre ngay def bàyyi mu fondre. nga sànni crouton yi. def euh, sel def poivre. nga am say crouton. comme nii su paree bu la neexee mën nga ko bàyyi mu séché. Mm-hmm. si biti wala nga taal four. Mm-hmm. préchauffé ko à cent degré mu am benn chaleur bi. nga dugal ko fa bàyyi ko mu croûté foofu. pour mu croustillant ok. chef mel mi dafa mel ni say crouton pare na. waaw pare nañ suñu crouton. Mm-hmm. suñu crevette sauté nañ ko pare. defar nañ suñu sauce César. d'accord li si des mooy dañuy jàll juste si kii bi dressage Aïcha kon dama lay bàyyi nga tressé. d'accord en attendant may euh, ñëwaat ci yow damay jàll ci ki nga xamante ne mooy Samsung Samsung nag nee naa leen euh, tey aussi dafa nekk toujours ci li nga xamante ne mooy euh, promotion am lépp lu jëm ci wàllum micro-ondes ak réfrigérateur daf koy def ci li nga xamante ne mooy promotion alors tey nag micro-ondes simple de 23 ou de 30 litres intérieur céramique. qui ne raye pas ou ne rouille pas donc loolu c'est important micro-ondes yi da ngay jékki-jékki dem commencé di di xomaag donc yooyu fekku ci Samsung Samsung nag euh, daf leen indil euh, qualité te neex na nettoyer vraiment amul euh, benn problème boo xamante ne di nga ci jànkonteel yooyu di euh, micro onde euh, li nga xam ne mooy micro onde Samsung yi bépp promotion bu am ci biir Samsung mën ngeen ko am ci boutique Jili CSB fële ca rond point cité Kër Góor gi numéro de téléphone bi mu ngi nekk 33 822 47 00 wala 75 441 34 34 wala nga dem ci site web bi www point csb point sn donc euh, ñu ngi remercier Samsung bu baax a baax a baax alors euh, bu ñu paree ci euh, Samsung nag dañuy jàll ci ki nga xamante ne mooy les Kandia les Kandia nag mi ngi nële meew bu am solo la boo xamante ne baax na ci mag. baax na ci xale baax na ci góor baax na ci jigéen te day euh, yokk li nga xamante ne mooy ay euh, calcium ak euh, protéine nga xam ne suñu yaram moom la soxla alors loolu nag du ma ci taay di ko wax mooy fii lañ ko defaree c'est un produit local donc ay doomu Sénégal ñoom ñoo koy produire mi ngi noonu képp ku ci bëgg nag vraiment da ngay dem ci grande surface yi wala ci boutique yi wala ci supérette yi fépp foo dem rek di nga ko fa mën a fekk donc am na aussi c'est existe en plusieurs formats mi ngi na le plusieurs formats disponibles boo bëgg rek bu ndaw bu mag tànn sa bu la neex la donc ñu ngi remercier les Kandia bu baax a baax a baax alors suñu paree ci euh, les Kandia dañuy ñëw ci ki nga xamante ne mooy arôme Amar Trading moom moo ñu indil euh, arôme yu am solo yële euh, lu ci mel ni condiment nee naa leen boobu nag arôme condiment moom lépp luy assaisonnement wala muy soupe wala ngay euh, vraiment defar say sauce mën nga ko ci jël def ko ci biir. alors am na toujours aussi beneen arôme mooy bi ñu tàmm di xam rek euh, muy euh, arôme universel donc moom tamit mi ngi nale moom nee naa leen cafkaam amul. te amul conservateur amul colorant donc loolu yëpp nag ki nga xamante ne mooy Amar moom moo leen ko indil te naa leen dafay intensifier li nga xamante ne mooy seen ay goût alors suñu paree ci Amar Trading nag dañuy jàll ci jus original jus original nag euh, nee naa leen da ngay naan jus ba noppi di lekk fruit donc mi ngi noonu euh, ki nga xamante ne mooy Ndukumaan euh, groupe ñoo leen ko indil am na cinq parfums am na orange am na mangue am na ananas am na cocktail am na pêche tànn sa bu la neex la ku ci bëgg nag da ngay woote ci 77 644 15 67 donc loolu Ndukumaan groupe moo ñu ko indil ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax alors chef dafa mel nii def nga dressé nga ba pare de. waaw dressé assiette bi composant bi moom daanaka jarul sañu si jaaraat parce que tënk nañ ko sànq waaw mhm. a finition bi rek la ñuy wax mhm. ñu ngi ko finiree ak gambas yi ñu sote woon mhm. ak croutons yi finir ko ak euh, tomates cerises yi olive noire gis naa nga nga nga wis ci tamit euh, euh, parmesan bi ci kaw parmesan ko ci kawam am na tamit si sauce sauce César bi moom lañ kulli ci kaw kii <laughs> soo tey salade bi yow lañ koy jox tey Aïssata la ñuy tëbbal di ñuy tëbbal salade bi voilà Aïssata yaa moom tey plat bi yow lañ ko déjee ayca bisimilah lan ngay tàggoo. waaw ñu ngi nuyu ñëpp. Mhm. comme niñ ko njëkkee woon rek. Mhm. waaw ku lim moom day juum. Mhm. xanaa fa lañ koy xaw a tënk rek. d' accord léegi ku la bëggoon contacter tey nga joxe sa numéro de téléphone. waaw ku ma bëggoon contacter mën na def 77. 200 716. 77 22. d'accord wala 70. 916 55 95. voilà ayca chef mel mi. jërëjëf chef mel mi ñu ngi lay remercier bu baax a baax a comme leen ko waxee bu leen fàtte nag donc tey euh, euh, euh, bi la donc suba. ci plat de résistance bi la ñuy ñëwaat ginnaaw suba ñu ñëw ci dessert bi menu lañ leen di proposer alors voilà chers téléspectateurs on vous donne rendez-vous demain et d'ici là passez un